la jot moom la mu nekkoon ba tey ji bàyyi wu ko. waa koñ be njaay de sena. bañ de dafa dox. dox dox bu la. daa dox day xaañe. daa dox day dóore. daa dox gaa yi bañ rek dox. doyul bay des. petit gosse bu ma ñëw dindal ma ay ndogu les gens. Oh my God. Oh yeah, musical. Topp ma sama tànk topp ma sama toppal ma wii. kii sama doom la sama. dama xew. sama xamul. dama ko toog ba loola. Ramadan bu baax Noi siete ni. Yo ada bunyi yo ada. Koni hati. Melekan lomoy Xamoo ba ñoy wëcc C'est que lama kontaan lo mooy man. Kuma fasé. Dig ma baar saw. Ñoy Man loxo bu ma bàyyi loxo nga iya, taxaw. Dama ris juróom ñett yoon. Man dama ris juróom ñett yoon. Waaw. Ku demit di nga ñëwaat. Xam nga lu tax. Bu dul kàttan gi. Du alal bi di xel man la fi yàlla fekk. Eh waaye yëg wah. waaw mbaa wah. leen wah. waaw mayewul day wah. waaw wah. fii waaw bés ku nekk jot jaar na loo xamal loo ko koy wax nga xamante ne li muy def wah ko te yàlla day ngistal waaye yow de yow dem nga ñëwaat dem ñëwaat waru raas waru maa sax man yow dem ñëwaat yow de xaj nga danga fàtte fàtte Wah, fi wax leen dem dama pexe see ñi wa ñëw war a ñëw dañu ma baax yi yow kay man la man la yow la dem dama pexe see waxal li ngay wax ñu dem si noonu. kee doo tuux si topp. tey voilà sa daara xel. yàqamti woo dama yàqamti gaaw leen ma pexe. Ndiaye ki yow la. moi je Ndiaye Fodé Ndiaye fils de Moussa Ndoye et de Boss Mor Bessi Ndiaye ya. waaw Ndiaye. tey foofu la ko. yee Zara man yow man la de. yow wax ko li nga wax ñu dem suñu yoon. yow waxal ñu dem yow tamit Zara. oh my God. Ndiaye yow da ngay ne moo la de waaye dañu la soxla. waaw loolu non. yow waxal. yaay doo wax. comme tu veux. je peux ku la jàngal. waa nangu nañ. ñoo ne moom ñoo ñëwaat. ñoo ñàkk jom dëgg la. ñooy wàcc mm. damay nangu tey yaa am dëgg damay nangu biir. loolu lañ bëgg. dama ne ay idée lañ yaa soxla ma yaw kuy seen baa yaa eh, eh, eh. non non rek kon dem leen kuy seen baa yaa lalla zaxaax na xamoo réew mi caga sax amul retraite ndax li ma waxee arrangé wu la pardon yeen bu len defone bu ndogo ba pare ngeen wo ñi ngeen xamni seen ay client lañ ngeen leen dañuy wota ataya mbéray sama kër après ndogu sa copain bu ñëwé joxal la ñaari junni pour ataya hmm. sa copain joxe ñaari junni pour ataya sa bos joxe ñaari junni sa fay ñaata trente la ça fait 30 000 30 000 ça fait journée yàqu waa Porokhane 30 000 ak moom yeewu suba defal même chose des walking and de mois de di fay location am sen dépense dana am problème où est problème jot suis Je nga ni surtout suis dama xew dama xew.

mi ngi nii. di nga gis message ngeen bokk ko. yaay moo ñu baax. may naa ne cinquante mille. xaar ma gis message. xaar ma gis bu neexul réseau téléphone. réseau si ton téléphone. xaaral xaaral yow xoolal yow. sa sa téléphone. ah c'est carte bi faaxa. seen loxo day ngeen di dooxa. c'est carte bi faaxa. seen loxo droite ngeen dooxa. dafa sàcc. waxuma loolu de yow. da nga ko sàcc yow ndànk. loo sàcc la gémmiñam gi mel ne yoon xamul xamul xam ndànk sant la xam. gémmiñam gu yàqu. jaay jaay yow dama amaloon dogo ma. waaw wuyu ma yaa doon wuyu. wa doon wuyu. waxal. nañ dem rek du mu mën a dara. ah déedéet ñu miiraas sunu kër jox ma sama wàll ma may leen seen wàll point loolu la jeex na. yoo xam ne chaque jour ñu miiraas si leen bala ma mer di ko retiré dem leen wala ma mer di ko retiré. xanaa lu jaar leneen kay. à tout moment mën naa ko retiré. dem leen bala ma mer ko retiré. <laughs> est-ce que 5-0 la est-ce que 5-0 naa leen si tegal 2000 francs ngeen paas ba leen di ñëw suba. déglu leen Ah. sama Ndiaye ngi yow. waa Ndiaye lan fas kanam da nga am dëcc xanaa. sa fa kanam. ah. mais fas sama kanam gi ni ko dof. Ya, ah yow kay ah dafa da ngay waaj dof nag. ma ñëw rek nga fas sa kanam nii tamit ne man man man seeg xaaral rek. maanaam yow yaa histoire yow nitu histoire nga. ah ba tey gisee rek mais fas sama kanam. ba tey te da ngay duggaate. ah dinaa dugg ñëpp de dinaa dugg ñëpp. man dugg ma génn. la génn de waaw man sax xuloo man man man tey. kaay nii kaay taxaw nii taxaw nii. tey xuloo ma. sañ nga de damaa sañ-sañ. waaw xuloo ma tax a jël film tax a dem ay yére laay jënd tànn ah, dong may jënd ah jaayee gën a métti jaay di indiqué salaam waa ngiwal gi noonu lañ def Papa Mbaay Mor Mbaay Paate Mbaay Ndey serial na ngeen def xale yi namm naa leen yërimu xanaa xanaa bootuñu ko at. yéen a ngi si jàmm. Mor Mbaye naka simb si. ah simb da amul fi ne nii moom koor daa am noog moom xanaa kay nag moom ay kii ngeen xool noonu lañ def rek. namm naa leen def waaye ngeen def naam. xanaa li Angleterre la jógee. yére yi sama yére man dama jëndee Angleterre yére yi Dubaay rek. ay moo tax doo bàyyi de. ay bala Dubaay laa am. doo bàyyi dara mu jàll yow. ba nga jógee Dubaay laa xamante ne doo bàyyi. na ngeen def waa Ibadou gi. asalaamaaleykum Ndiaye li laa jël taala ngi nuyu ñëpp ba pare man sax man sax man sax xaaral téye ma nii jëllaabi bu classe laa bëgg mooy jëllaabi boo xamante ni sa fii du feeñ day ñëw nekk collant longue manche wàcc am col xam nga dina mën a julli xam nga ci weeru koor lañ nekk tamit. maama du ma sa jaay bu rëy bi yëpp ak sa kaas tubaab bi tubaab di kaal la nga ne doo jaay jaalaabe dafa am bitig jaalaabe am bitig fëgg jaay man fëgg apa? laay jaay ah dama apa da ngay jaay fii da nga yaakaar lan c'est que ni may xoolee moo tiidlu moo ragallu yow yow yow ni nga fa ragallu njaay waxata nga dem ah jaalaabe laa bëggoon comme amoo ko kay garaawul rek jëndoo bëgg naa jënd de mais jaalaabe laa bëgg amoo ko mais tey yàq bu sol garaam boobu yaa yaa ma ne dëkk bi waay dëkk bi waay xale ñoo ñàkk kersa xale dañ leen yoon fu ñu toroxal mag ñi su booxul ma la su booxul ma la su duuxul booxul ma la lakkoo naa la jumaay Tuuba jumaay Tiwaawan juróom-ñaari sunnuñ dulli juróom-ñaari taati wasin dëmm bu nga doon